niroo yaram niroo sewaay niroo deret ji nu bi niroo doxin niroo waxin niroo jëm ak meloog doxin nga waa ni keneen bamba ñaati xernu bi moo di walax njaanu jinaan bu leen ka ba ti kañaan kañaan di tee béje daan bàyyi ma leer bi moo doon tab gawan ca moo doon njambaar gi ci moom seen baay seddale koom seddi kuli ji bi maa jël maa raw na zaahiram day gaaw a soppee biram mbir ma ca baaye may mbiram mu yor jaloore xarnu bi yàlla nañ dolli ay murit te yàlla raw pexe marit te yàlla mu jidi farit ba toll gaay xarnu bi nan ñaan ci yàlla mi samat mu may sëriñ abdou samat te may sëriñ abdou laat xar baaxi doy waa xarnu bi ci booti xul wa falil sëriñ mag bi tudd yéen yàlla bu seeni barkeneen ndax yàlla naatal xarnu bi te may yokk abdu qaadiri fi shaa'irin wa baatini mi jaayi baayi taayiri bam fardi jiilim xarnu bi te yal na ibrahima moom dewub xarit ci sun borom jot ci booti turandoom ndax yàlla naatal xarnu bi mboolem mi dooni saaliin ci soowu jant ak feneen yàlla na saali di jant bu tiim waa xarnu bi dunduk sooy bu gaak alal ji bari jaa jam dara jaal yàlla ko seex bamba misaal ci sunu sooyum xarnu bi kamaylu barke agrila te sor ngërëm ci murtala ba koo soob mu ne xala aajaati ji xarnu bi mboolan di seyxi bamba am yàlla ñu gën te yokku gëm kondey nu bokk ami ndam te am ngërëm ci xarnu bi musaa kami seen welekaan moo leen di way di leen dagaan te sant tey tagga kañaan ndax yàlla naatal xarnu bi ngir ab ngir abdu soxna mbay ak maaram mi ngeen ji baay moo yaay baay sama ndey maa dam bi ji sey na mbakem soxna njaay ak maaram mi ñëpp ngay moo yaay baay sama yaay maa dam bi man leebu naa lakk leen wax naa wala bakkal leen wax naa araab ngir ba ngeen xam Bamba waa xarnu bi way naa ko saaram malaan mi yàlla wàcce alquran ngir bëgg lépp lu ma ñaan yàlla defal ko xarnu bi julil ci ngeen adnaan te ne ko lépp lu ñaan géwél bu jaax war a ñaan ndax yàlla naatel xernu bi bismillahi rahmaani rahim mboole murit yi leen ma yee ci biir seex ante bu leen nelaw yeen mboole murit yi leen ma yee ci biir seexam taablee nelaw yeen li nelaw nelaw du teema yeete li may gëlëm du teema woote amaana kuy nelaw nelaw lu ngir reer waaye bu dee feete yandoor bu leen di fàtte yàlla ak dogal yi ak a teyaak sañ-sañ bi ak mbugal yi kàttan ngaa nag coobareem ca lay jëf loo gis mu xew mi ndee manul sañul lëf dogal baam day lëkkaloo ki xew-xew ngir ku gisul war naa la ko ki sew-sew te yàlla doo ko gis ba xam la muy def loo xaji xaji buur bi làqale yëf ku gën a xajay na toomiw ku jële pey ba gana gis tiisam yëm te yàlla kat xarit balay musibaal ngir dara jaal ko mbaate muy ku ñi baal la yàlla jox xarit ba ci maqaama te munu ko jëf na tulañ koy xayma la yàlla jox xarit ba ci maqaama te munu ko jëf na tulañ koy xayma te bala laa wóolu ba jox la bir nga muñ yanam ba aw ca tànki bariye lanablawaanakum li saabiriina aasibana suli kaasibiina moom lañ waxoon yoneen yaag lab daali akut bu yaag wali yaag law taali waxaara kut bu lawliyel mbakkiyu raliyel aw anuwel mekkiyu wabil adiisin abalaaw وبعده بنقبة ابتلاء فعايز ما اشتبر اجتباء وعايز ما بعتر استباء أهل البلع ليس لهم من شان وليس إنسان لهم ديوان ديقوا المواخلة على دلون يغنين يو أكساب ياك ولياك جم يو شاخل من أجري أمان تباون mbirum sëñ gaawaan weef ci baatin seetal borom mu ngi na ayo ba cheikh yaa ka dàq ak di wax nay kooba te yaaw ko sant di wax alam daa moo tax ba yàlla naa ko ni ma lab du seetal ma daan yel ma daan cib teen ñu boole ko ki gaynde yeew ko ci teen gaynde far di mar yaram fa muy ree ñu far ko saara bi waare yi xiyaana toom bi dootu am ci Sénégal noon yaa ka jàpp xar jamam jeeyaari gaal muy bëgg wax yàlla yebal jibilu nekka su ne eh dootu doon mar soolu sooxale me maam sunu Ibrahima mbolaataam xaliilan ak xaliima noona mi génn nañ ko muy bay fiala ba yàlla randiloo ko Ismaayila ñu del taal ko ba nung Namroos def ko biir yàlla seral solom saa seetal ma yonneen bi ñu yàngooba gumbana ayat di palamtu nee ba dadaa si mboy rongooñ gannaaw bi Yuusufa shankoom jekki saroo ayaasa ba soo xalamee nag Yuusufa ak bokkam yi delu xalam kasom beeg tuumaam yi dootoo ragal kudul ilee inaasi doo yox-yoxee di ngir pexem xanaasi na tub juli da yokkay maqaama mbaa muy pi si piñaaw tiibi sib xiyaama na too di kerkeraan lawliyaay ku weddi laaj ko xëy len biyaay mas nañu koo génne mu dem ba najaraan ñi di ko sànni doj te naa ndey jabaraan noon yaa génn Makka ndax bañ diine bis na bee la dem Madina fanaan na cim xunti fanaan cay doj ànd ak Ababakar lu nekk muy daj fañ nañ ko tabal ko ci biirub sarwaan jox nañ ko tooke teew koo doy kiimaan keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak fallaxi mocce ko xayru naasi bisub keroog la yàlla daanel kéefër yëkkatil islaam loolu doy na tiitër duniyaa xanaa mooy suñul muuminiin waa jaanatul kaafira ñi ñaar duñ mane dogal bu am nag yàllaa ko def te xam naa di ay diw soo gërëmul gërëm naa seetal ma saaba yi gannaaw yoneen bi waree fu ak ko xamul baatin ba am na ci biir yoo xam ne lamiñ du am na ci biir yoo xam ne dees na ko misaal فوجب الامشاك أما سجرا waaye dina aalil fii mosal fii dara ndax ku xamul yaaram mu dolli kogu aar ku xam aram na seeti nooru labsaar gannaaw rasulullah ak sadeexu lang reen di usmaan dellu jam faaroox rey nañ ko a tuuma nañ ko jàpp marwaan mosoo kibir ye déglu leene yéen gaawaan gaw kër ga arbayiina yawman wata satan lii doy na fecc ci war ma kenn musta gis nañu ree Abdoulaye dañ ko sarab dog bopp na lay yamal jamal toj nañ batum joor ba bis ba ñu toj batum càmmooy bi Muhammadul Ababakar Sadeex rey nu ma jaar na nekk yooxu rey nañ ko wat ko sànn ci santaare taxan jabal ko a boole ko imaaru Ali Aydara ka doon jàmbaar ja abool wa seynu wal asan yaakaar yi baña mi dey nañ ko cëri koofa ngir weddi yàlla gaay rokk foofa fa mi julee fajalle ibnul manal jam boccib gobar bett ko daldi koy jam seetal wa seynu yow ma asoora lañ kara cere karbala noon yaa yor bopp bi gannaaw bi deena lami yoon aasiyale mu lesiina seedal asan noona mi dañ ko tooke mu dalli faatu soxna saaka sooke ñoo tooke saadiq dellu tooke baaxir ñoo tooke seynil aabidiine tayir satub rasulullahi musal kaasimi ganee bu am gor ci doomi aasim taal nañu neeg ba ca kawam ca Bagdaad tëj nañ giyaat ba armel na graat yangoo ba doomi waaji na Daawuda koo kaarim na tu asal mooy waada fukki at ak juróom laam ci bënn aw bu leereere te musa génn Cheikh Anas bàyyi limaamu Maliki doo ama xall ngeen mi tax ni seeliki tëj nañ kaat ci kasoom la faatoo mbar ma ka jullee wut foo faatu xanaa xamoo alaaji soob yooyu mbar door nañ ko waxtu takku saan junni yar mu taxawe di gaa yi far ko rendi sànn ca dag ya taamoon nañ jendi xanaa xamoo jaxfara doomi Yahya te nañ ko far ko rendi jengi Yahya na mu tesi de mu tawakkil baayam ma seebu ko gis rey ko doni gaayam kenn mu sayi na nga Qaahiri ak muntaka ak mustayin ak naasiri dëngeete daa ceri mboolem pont togg be deex sotti ko mboolem gët ya abbas baram daala jawan ca mesare teñ nañ caat bab korey fa besare baram jumaa ji fakkaani teñ nañ ko fab karen di tëj bunyaani xanaa xamoo man soor sey fu diine moom la ñu génneen mu dem siini seetal ma kañ dàqe ci réew yi sori ya mu jóge daw balas kenderi ya jot ka far ko jàpp tëj ka ci a waxtu moo defoon xaliba ndiyam xulafaa yi dañu rasool ñoom lañu def ni kenn war tawolu soo xalamee sax saari yoog saareyni kalaame nañ leen nattu leen saxreyni soo xalamee waroom yeen ti ngir yaa doosi ku daj lam dajoon ca bari yow ahmadu an bari ma raw ca ngir yaaw ñeenti jéng lañ defoon ca ko caw téeméeri yar subaa ngoon te musta weddi yàlla musta mooy yoon wa yaxtimul quraan kulla yawmi maa qiyaami mu diimu sawmi ci la sax ba faatu wóor na Bagdaad ci la sax ba mustasim xëy faatu buur ba ko tegli woon taxul mu yaatu ba mustasim faatoo ñu xëy fal waasex mu yeesalaat kasoom mbaa door ya far sax cooxala mee na kasoom Abu Hanifa an ma Abu Jafar defeeb xalifa kon doo xalaatal Seydil Muxtaaro téeméer yar li daañi kereere téeméer ak keñu beelam du li daa defek naafila doora wér du wa yaxtimul quraan kulla yawmi maa qiyaami mu diimu sawmi ci la sax faati war na Bagdaad في يوم الجمعة لورشة جاب شو هرمينك فينا الإمام مالكي ngir wax yaaroona rachidil maliki kon nga ndax malik amul karaama te xam ne day ragal alag malaama seetal mbiru maamina ak maamoona te xam ne ñoo dogo geñ aaroona da yolam ba xam ne gaa yi mu rey ko dali xëy di xalifa su ngeen gamu lii yéen muri ci gaawaan ngeen daal di yegg teereb aywatul ayawaan te xam ne tey bu ñu konoog français bi ñu amoon dana amaat ci saasi la ñu defoon nag gaa yi gëmoon yoneen ba misaal mi war naa feeñ ci gaa bamba waaye français non na gooru Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñii génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen gannaay ndax ñu yaatu fam nañu saamuuri cereeri soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala ba ñu key mbulaañse def ko ci biir nag laaw la ma faraañse ñoo gene lam de julbee réewi ñooro rey makki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del rey nag almaami abdu bukar ahmadu say xeet jàpp abdul qaadir jàpp rakkam almaami Ali Bokar yóbbu gabang doom ji ñu man ka póotar ñoo génne albureeg samba ceelaaw fuk raa penku ne ma waawaaw wuri kajoor fi nekkoon ci baawan ñoo toxol na kay taxawal ti waawan raatale doomi buuri win fi saalum raatale siin gànnaar taxaw ne maalum seri si wan diggante waaloog njaambur ñu jàpp leen nag kenn defatul ab jaambur ay na sëriñ ma ka baraama xaali ñoo ko na caste moo rawoon kuy xaali chatu maxtaar nu mbeemi sañcoon kokki ahmadu aminata ñoo ko sànki nan jeema daddu adduna ak gi te xam ne waaju aaye wal ayam gi duniyaay tiisu gaa yi ci yàlla te yaa jene yee weddi yàlla ku weddi seet ahmadul makkiyu bam laata doon muhammadul makkiyu noon ee geene gi mbakke beeri sandal ma yang ko na andar ngay e jaari mu jaari ndar muy bëgg a mel daaram i daldi ko jalax mu dem Dakar soxale me yaari guddi e Dakaram ba dégg wax ji mbar moo nga waaru iza zakartu salika almabita wa salika alamira wa sabota tarat ila jadibi larmai nafsi walakin saba an ilmai noonu yaa génne foofe yóbbu galwaa mu sax juróom yaar atam ca balwaa dem na Kunaakiri ba dem maa yomba te musta yox yoxi si Tuubaa kanoog fetal ak karawaas ak jeesi du tee sëriñ nag di way ci neesi mu ñëw ñu fab quartier yi boole mbaaxaan ci kewituma lépp dooni caaxaan ngal doole Bamba du morom kacoor gaaxi cukkal kenn du ko perngal mboccoor yan bañan xudd ya ak lab daal ya te attanuñ ko nag moo ko fab raw gaaya dënga ndiwiy tawatul balaaya sóoratul xiwaani li am ci laaya sëriñ si naaxi la ñu bàmbaay kaamil bari yëpp suq ñu bàmbaay kaabal man sakke bi saali kabalu jaribu wamanu jaribu abi takkaru bi xandeela kub dërëm akub dinaar ñooyam fadaam te du maay deynaaru bamba kumal mooy donay rasoolu moo ñeme mooy kenn ku wecci mbooloo waxilaru burujiin ka alfin waru bu alfin qiimatan kawfin muhammadun fardun ya fooqa tasniya wa faaxa jaman wal xudaaye maqniya sëriñ bi cam soo ca qiyaas mu yees ko te moom place boo ko wutal mu fiyees ko sëriñ bi alëf ciw desam ñeddal seexam ta moo tax noonu far korandal kundanu sayir wala ñeddi baatin sayir balaa maa tax am baatin kuy rabba dey xiifa kamar sax mbaamuy nangoo guddee mbaari fete luñ taamu jaara maam seexante yaa gëm bamba yaa taaru yaa tabe te gëm yonneen bi yaa jëkka fab semil ci seenu askan jebal sëriñ Tuuba nuroowula ak kenn gëm yàlla gëm yonneen bi gëm sëriñ bi moo tax gam dogal bi attan yan ba gamug dogal te aw ndigal nii la sëriñ bi def baraw faraayse seen bu bi diis na mboolem Sénégal te tabatoo kalaame woo nihma rijaal fa rajulu rajulu man yasbiru fii baliyatin wa ni amin aishatu fii sabrun jamin bakke yaa wakiilu yaa woo rabbul arshi maa la na tiirey boole bari jaloore ànd ak gudub tànk lëmba di luure yaa fi demoon ku naa kireeki kongo fekki Serigne Touba nag ne leen ma gongo yaa bari ay ndam bari jaloore yaa dem ba romb géeji romb toore yaa juume dem Minan ak Arafa yaa dem Saba ak Marwata ak Masdalifa caare fi Madina Munawara mu ne fu laa gàkkal nga sawara Ahmed Ndiaye ma yoro Ibrahima yaa na xamal maqaama Ibrahima ràmm nga leen tàggoo nañu ak sunu ba caa nañ tey ba siyaare Tuuba ajaala akbar wa taala say doom tembanti Bamba Samba yaa koosam koom fa pavillon ba ba Rasululaayi yot ka Sëriñ Tuuba damul walaay seleen wa ŋaañi ci wàllu yàlla fees nga palaas santal te woolu yàlla yoro faraaje teg na tuy maara ngir xam ne man nga xawsu man nga xutbu yoonu murit sempi nga seenu raaya chef def la ñuy xëccoo baa mi daaya samboor da gaaya xañ ci fii ba gànnaar ndeka nga jóg ñu siidil muxtaar yaay jëkkaañ makka ci yoonu bamba yaay champion ci yoonu seexi bamba lu nekk yaa ko jëkk ci soodaan yaa ni mosal dinu musal cey daan yaay ni malu réew mi caanu bekkoor yaa daa defal baa doole ñi fi buur jini mi ak miskin yi ak ñi baayo ak masukat yi waa ñongo waayo amaana kuy ndokk wi tax baaraam ba taxam na yaa sanandayam baayam ba mu ne afulaa gotti ba far sa mu ne fulaa soxlu ba sur sa ndam yi yaa war a sant ak yoneen bi ngir foo taxaarangoo nga ne li bamba bamba takkana la mi daay beetin amul koy tekki kudul borom kun mbarum sëriñ Tuuba mu ni su koo daan ma ngay takkee ndombaam fa piyi diiwaan maamanta njaay wàcc na am na yaaram am ilimaan galliwloo ci maaram yaram du gam-gam loog sagan ba xaadem walaay waa ju xam na maasam taxawlu naa lii doy na gaay baax yi waa ju ko muñ balaa yi te muñ natt yi ak bekkoor bi te war muñ bon ak bakkaar bi ilaay tubtu tawbatan nasuwa min kulli ma faaltoo xabiya bulu kana xalaate ñii parnoose daa way way defal waa suusi aasana laaw min alcheytaane wa kullu aasidin min aljilaani wa min tabasuqi wa min takkaburi wa min taawudi wa min tanasuri cheytaan di mbar mi liggéeru xale tubaab dagam di gon loo féewale xanaa yëgoon ak ci alquran li yàlla ina siyaati a layoona ilax naa feq yaa ngi doxtiraam ndax jamono jàngal isaa la qoole siina amano bu ñu demee Tuuba nu roog waa Tuuba te bu ñee ci réew mi mel ni kooba waaye sëriñ Tuuba mu ne yeesu koo nax mu ne yeesu koo joomal ku tewre de tex tabaarakallaahu na de boote mi ci ahmadul maamoon ak rakkam yi cam si ñin ahmadu feeti ture yal nañ ka turi may dayaa ture te bamboon ci gooru diiwaan tafa borom gaawaan nag mu del si gaawaan te yàlla waa tumbu ku toog ñooro jebulu ba segoog fuuta tooro taal bi bamba taaloon ci yeew mi yàlla ko seex dekki bar ci mi tereem ngi yàlla dolli kuy maqaama ak i ngërëm keroog bi amiin amiin wa sallallahu ala nabi wa man wala bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallima taslima waaji Musa abul fatte waaji Tuuba moo faatu moo la nga labul fàtte seex bamba ci duniyaa bu la fàddoon saxal calam samtaane naka sab xol de jàkkandi am raaw na say bët mi ngi ci daawuloo seetaani boo nga fàtte mu fàtte fàtte lu say biir war nga foo tollu fab ka de waxtaani xaramal yàlla mbar mi naa faskuruni askurkum fi suratil imraani xaramaatal li jëkk fi tabiyuni yuhbikum fi suratil imraani wa awli lamri minkum boo ko réeree te nga dem yer fi suratil niswaani fabtaqoo ibtaqoo ilayhi wasila bale ngaa dem ci yàlla am kër aani Seexina Bamba moo fi wutu si te misaal mi lu le bil quraani kulla faaw yoon yooni ngeri ñi xaloon yaa ko dekkal yer kaamiru usmaani yaa fi daawa yonen bi yaa doonu kahbun yaaɓe ɗemlo busheyru ak asani yaaɓe ɗani tigayi ɓayi fiɗa yaw yaaɓe yorɓoodi ahmad al adnani yaadi malik di shafiu yaadi anbal yaadi ɓayi anifa tog nuhmani bala yalla yabal sifi amasarin boobali xawsi yaa di seen sultaani doon ngay mboot ci gaay yi bi nekkoon yaay doonoy Seyxu Ahmed Tijaani doon ngay mboot ci kuntu yeegi xalifa yaay doonay Abdu Xaadir Jeylaani doon ngay mboot ci xutbu am di ye daali doon ngay mboot ci naari waa day maane doon ngay mboot ci mbakke ak ci mbusoobe yaa fi lamp biilaan ak sodaani dawa ak nit ci gaay baay bi daa ñëw yaa di waame ngeneel yàlla yi dul fer kula taatan fardu ji kaw naani yaa sun ngeen mu jëm ci yàlla siraatal mustaqiman ku soobu teeru jinaani yaaru sun ngeer mu jëm ci yàlla siraatal mustaqiman ku soobu teeru jinaani yaari suukar ku mas naa jana ndollon ku masul dootu masulu bay nooraani yaadi ndaru yi yaanu suwoon doxum gëm bul kan yow ku dee di dem niiraane we yaa raga raga xoli yoonu tere bew bul kënex yoon no ang yem ak nasraani yaa fi seexal kànge mi ñëpp a ngi roy yow mi tuubloo Abdul Xafoor Mbaaxaani yaa nu wamat wamat murid yi nu àndal di mbar yaa nu tàggaleeg seytaane yaa den tàllal sa teel sotti say may yaadi géeju ngëneel gudur rootaani yaa di el Seex Ibra faati ci say may yaa ko jiital muy xuddu fi diwaane yaa fi dee seexal yow yaa defal sëxi Anta barki budul dañ jox ko Daaru Salaam ak gaane yaa defal sëxi Ahmed ibni Shaydi gam ko ànd ak dëggal ba am ridwaani yaa defal seex ibra lamp bu dul fay yaa kawan yoona jëm ca dex ga mu naane yaa defal seex ibra lamp bu dul fay yaa kawan yoon wa jex ci dem ga mu naane yaa saxal seexi abdu daaru alimi yakamboate mkujange fil qur'ani yasafa lampidine gayefa tuba sanci daru sara magmanari dire daru salam agi tuba Uzata odiri dọlịta biji naanị. Gịnị ọrụ salam ọdịtụba? Kụlba adọtị dọlịta biji naanị. Ya amasị ahụ tọmanyọ fatụ mmanya iwe. Ya amasị ọdọ dị balụ. love somebody. Ya mo ti o da bi mi tor. Ya mo ti o da bi ya mo ti o go du mal ke